may jox mooy euh, stratégie de chrétienisation rek chrétienisation mooy jeunesse bi xëy na xamuñu nu ñu leen di def pour euh, maîtriser leen et que bëri nañ bëri waaye boo xamante ni léegi dañ mujj nekk soppiku fardeau. Hmm. parce que li ñu waroon jël def ko suñu préoccupation ci ndaw ñi pour former leen bien forme leen pour ñu nekk ressource boo xamante ni inépuisable lay doon pour suñu réew pour soxali ko ndax ndaw ñi ñu yàlla jox lu nekk mën nañ ko liggéey ci dëkk bi lu nekk mën nañ leen ci orienté. léegi bu ñu leen bàyyee ñu sonn li ñuy daj déjà rek ci seen euh, parcours ba àgg université mu nekk loo xamante ni seen dernier espoir la ñu yaakaar ne fi temple du savoir la bu ñu fi ñëwee mën nañ fee formé wu génn mën a am lu ñu def hmm. ñu ñëw ba foofu gis encore traitement bi nga xamante ne bi moom lañ leen di xaare foofu encore loolu da ngay gis ne li muy indi mooy désespoir hmm. léegi jeunesse boo xamante ne ñoom nga gis ci mbedd mi ñu toog jaaxle du ñu xam fu ñu jëm voilà complètement désemparé du ñu xam fu ñu jëm te loolu moo gën a garaaw foofu ko li ñuy ragal ci insécurité bi ñu doon ragal université. Mm-hmm. mooy loolu noonu safara boobu di jër-jëri ci ci ci ci ci ci ci xolu xale yi. Mm-hmm. ak euh, xëy na nu ñu xawee jànnaxee jaaxle tuuti xamuñu fu ñu jëm ak seen euh, avenir. Mm-hmm. loolu lu lu la ci réew mi. parce que xale yooyu mën nañ jël après ay risques yoo xamante ni bi parce que nit ki dundu mënuloo ko def te amuloo espoir. voilà léegi li li nekk ci ay xale ci université bi ni ñu toll déjà. incertitude bi ñu nekkoon rek ci njàng mi ndax gis nañ ni université bi surchargé ñu nga xamante ne bi noonu la nekkee loo xamante ne bi loolu jafee génn la mais loolu doyatu ci nga gis léegi ay question de politique tax muy am ay répercussions ci seen formation ba ñu leen di wax ne yéen toog leen ñoom dinañ gën xam ne ñoom nekkuñu priorité wu réew mi quoi mm. nekkuñu préoccupation ñi nga xamante ne bi xëy na ñoom ñoo yore réew mi mm. man lu ma gis rek mooy euh, wàllu politique ak doxalinu politique ci Sénégal la war a xoolaat quoi parce que manière de faire bi nga xamante ni bi moom moo fi nekk nga xam ne lépp ci ay calcul la ñoo mel nañ ko yor sa boo xamante ni euh, da ngay nas di nocci di teg di teg bi ci façon yoo xam ne lépp ci ay calcul lay tegu ak ci ay considération yoo xam ne xëy na mën na bañ a nekk li nga xam ne moom moo gën ci ci ci réew mi loolu la ñu war a xoolaat daal mm-hmm. parce que comme lu mu wax léegi le professeur bi wax léegi nii ne tëj nañ université bi mi ngi ñoom ñi fa nekk ñi nga xamante ne ñooy les principaux concernés ba léegi waxuñu leen loo xam ne lu leer la mm-hmm. Euh, en tout cas loolu lu raglu la ci réew daal. Mm-hmm. mais surtout ñun Afrique fi ñu toll nga xamante ni li ñu gën a mën a soqali mooy comme li doyen doon wax léegi mooy xam-xam. Mm-hmm. xam-xam moo xam ñun ñuy wax ci jàng ci wàllu lislaam la maanaam yow képp ku jàng fii ci réew yi boo fi nekkee li ngay gën a jooytu li maanaam da ngay souffrir man damay faral di wax ne amul ku gën a souffrir intellectuel fii en rawatina Sénégal ndax nit ñi ni ñu ñàkkalee solo xam-xam mm-hmm. bu nekk booy déglu ñi ci gën a médiocre ngay dégg ñu ciy wax. nit ñi fonk ñu xam-xam fonk ñu nitul xam-xam yow sax yaa ngi doon wax ci wàllu ay parce que yow yaa am xëy na su siw di consulter ay nitu xam-xam ndax xëy na am na benn rigueur booy demee hmm. mais la plupart de tes confrères nga baal ma. Hmm. sëñ Camara. Hmm. sama sama sama kal nga. waaw waaw waaw Kébé léegi mooy waxkat quoi. <laughs> waaw seetuñu ku am. xam-xam di lu mu xam. mais hmm. waxkat boo xam ne bu ñëwee dina échauffé wax ay wax ko. ay tojaange waaw. gaay gaay gaay di cliquer di di moom mi ngi toog ci canapé moom di trembler quoi ci li na ni kii ay bobaar lay wax waxul xam-xam. te kii wax bobaar mu ngi ah, moom moo fi nekk quoi noonu tamit nu muy feeñee ci ci ci loolu loolu moo dem ba installé wu fii fii maanaam ñun fonk bokkuñu trop xam-xam da nga koy gis même sax suñuy préoccupation ci ni ñuy gérer suñu réew ban place lañ jox xam-xam ak ban mm. place lañ jox formation mm. ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk élite bi ëllëg mm. waaw ban cër leen jox moom mi ngi wax ay dëkk léegi yaa ngi wax bay wax par exemple Ukraine di wax ay dëkk ñooñu ak ñun bokkuñu suñu culture bokkuñu ñooñu xam lan mooy njariñu xam ak tolluwaayu xam-xam ba bi ngay gis nii nit ñaa ngi jàng mais foofu ay université yu mag ñoo fa nekk yow xanaa xamoo boo gisee boo gisee tey conflit boobu jël benn bi li ko gën a indi ay borom xam-xam ñoo ko def est-ce que xam tey nga xamante ni bi ñoom ñoo leen di defaral ay armes di modifier seen RPG yi. di ko améliorer ba di commencer di inquiéter israéliens yi. Mhm. c'est des gens yoo xamante ne ay ingénieurs la ñuy former ci université Gaza. Hmm? ce qui veut dire que bu mënoo gis benn lutte ci àdduna bi ak ci lu mu mën a doon ci domaine yépp lu dul ne ay nitu xam-xam ñoo koy diriger ñoo koy jiite. ku boppam dara nekkul ci boppam mun a jiite. dara du du révolution du rien du tout. non voilà moo tax euh, en tout cas du du signe boo xam ne dal na xel daal ci réew moo xam ne fii la toll ci wàllu ñàkk ak dellu ginnaaw. amuñu lenn lu ñuy def lu dul di tëj suñu université loolu moom moo koy signe la. Hmm. waaw moo koy signe la hmm. pendant sept ans lépp luy fo ak caaxaan moom ñu ngi koy gën a vulgariser. loolu sax laa doon wax sànq ci mooy crétinisation euh, bi. Hmm. mooy xam nga ñun dafa am benn stratégie boo xam alxuraan moo ñu ko jàngal mais dafa nekk stratégie bu yàgg ci àdduna bi ci képp koo xamante ni danga nga bëgg euh, ay nit. di leen manipuler bokk na ci li nga gën a mën a utiliser mooy rey xam def ci ñoom. ak doyadi ah, ah, li ñu tuddee ah. crétinisation loolu yenn ci gëstukat yi dañ koy wax ci euh, wàllu lu ñuy tuddee ingénierie sociale mooy naka ngay def ba mën di manipuler les masses ah oui ci nga leen di gën a mën a voilà bien xam nga loolu moo indi li nga tuddee un peuple éveillé loolu moom moo indi li nga tuddee divertissement l'industrie du divertissement li tuddee entertainment entertainment kenn sax si ñoom daan wax tititainment la ko doon tuddee tititainment mooy doomu aadama instinct bi nekk ci moom ci bëgg bëgg lu neex nga xam ne xale buy jooy boo ko joxee ween bu nàmpee nelaw mm-hmm. Mm-hmm. léegi tamit nit ñi bu problème yi bëree coow li bëri ñaxtu bi bëri nga joxaat leen ween bi mm-hmm. ween bi mooy lan mooy làmb ji mooy musique bi mooy lii léegi bu ko defee ñu fàttewaat seen i problème léegi loolu ci nga leen di noyé noyé ci jeunesse bi pour lan pour mën leen a pour endormir leen pour ñu bàyyi trop parce que dañu jàpp ne er, étudiants yi lu ñu gën a jàng di gën a bëri ay préoccupation di gën bëri ambition di gën a bëri ay réclamation parce que boo xoolee li ci ëpp ay la ñu doon ay ay boo waxtaanee ñoom xam ne ñi vraiment ay borom xam-xam la ñuy doon ba moo tax boo demee même ci syndicat yi boo fa demee li ci ëpp ay ay borom nga fay mhm. fekk parce que ñi nga xam ni amuñu yenn ambition yi mhm. nekkuñu ay nitu xam-xam ay vision mhm. ñooñu duñu dugg ci ay lutte duñu porter dara quoi loolu moo tax kon xëy na dañu jàpp ne lu ñuy gën a nekk fi di former jeunes yi ñu ñuy gën a naqaree xëy na voilà maîtriser coow li di gën a bëri kon nañ leen bàyyi ñu toog naan seen was ak seen euh, di commentaire ci làmb voilà di commentaire ci làmb yi